إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ñi ngi sant suñu boroom jalla waala di seede ne moom dongo yi yow ñu koy jaamu di ko ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam moom dongo yi yoo jàngale nu ñuy jaamoo borom bi yàlla julli ci moom ak i sahaabaam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca màggal ko màggal leen yàlla ci bis yu màgg yi bis yi nga xam ne mooy bis yi gën a màgg ci at mi yépp suñu borom yàlla nee na li yàlla warmal day ku ko màggal xamal ni loolu day wane ragal yàlla ga ne ca xolam ca loolu it mooy la gën ci moom ca ngalawaay julit moytul di yemele bisi yàlla màggal ak yeneen bis ya place yi yàlla màggal ak yeneen place ya laa shakka ne yéen ñëpp heure bu ngeen demee ba dugg ci biir jàkka ji xam ngeen ne am ngeen comportement bu ngeen war a yoral place bi ba bokkul ak ba ngeen yoral mbedd ma lu mel noonu it la ñuy wax ci bis yu màgg yi mu bokk ca fukki fan yu màgg yi ubbi tabaski donte ne bis yooyu li ñuy màgg màgg am na ca nag ñaari bis yoo xam ne moom moo ca gën a màgg benn bi mooy bisu al bisu arafa ñu koy séentu aldi altine bii di ñëw ñaareel ba mooy bisu tabaski ñu koy séentu talaate bii di ñëw ca la ëpp ci jullit yi nekk ci kaw suuf su ko defee mbokk bisu arafa mi ngi nii di ñëw suñu kanam di bis boo xamee ni nii suñu borom yàlla màggal na ko lool mu bokk ci weer wu màgg ci weer yi yàlla wormaal nekk ci fukki fan yu màgg te mooy fukki fan yi tëj arab yi tëj yi ubbi bisu tab weeru tabaski nekk ca place bu kawe te mooy bokk ca ñetti fan ya nga xam ne ñoo tëj fukki fan yooyee suñu borom yàlla subhanahu wa taala waat ci ca mooy bi muy wax naan wa shahidin wa mashhud ku mel ne abi hurayra nee na loolu yàllaa ngi ci jublu lii di bisu ajjuma nga xam ne mooy shahid mashhud mooy bisu arafa almawud mooy yowm alqiyaama suñu borom yàlla bisu arafa la tànnoon matal ci suñu diine ji benn yahud dajeeg omar ibnul xataab ne ko ay yow amirul muminin yéen ngi jàng seen téere day aaya boo xam ne bu doon ci ñun yahud la wàcc daañ ko jàpp mu nekk bisu feet gu mag omar na ko ban aaya la mu ne ko aaya bi yàlla di wax naan bis ne tey matal naa seen diine mottali samay xéewal ci yéen gërëm lislaam mu nekk seen diine omar ne ko xam naa fan la wàcc ak ci ban waxtu la wàcc te mooy mi ngi wàcc ci bisu arafa ca bisu aljuma ca fekk yonent bi ma nga arafa looloo tax mu nekk ci ñun ñaari iit aljuma yépp iit la gannaaw ba arafa iit la loolee kon jullit ñi heure bu ñuy fàttaliku arafa bokk na luñ cay fàttaliku ndekete suñ diine ji matoon na keroog ba yàlla wàccee aaye yii ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ba fa yonent bi alayhi salaam jóge nga xam ne dundul lu mat ñetti weer wuy ji boroomam sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne nekkul woon ci diine ji ca jamono jooje gannaaw bala ñu sos ko indi ci diine ji ngalawaay nañ xam ne bokku ci kilifa gu toll ne yàlla nan lay waxee ne lii nga xam ne mooy diine ji mat na mottali naa ko nii laa ko gërëme ba pare ñu dox ay siècle ay doomu aadama indi ay jaamu yàlla ne lii kat ngërëmal yàlla mi ngi ci am ñu ca yegg sax ba jàpp ne loolee ñu indi gannaaw yonent bi moo gën a màgg ci lu bari lañ daan def ca jamono yonent bi mbokk loolu ab jullit waru koo nangu xel mu rafet waru koo nangu su ko defee kon yow ma arafa mi ngi noonu dañuy fàttali suñu matuk diine suñu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na aj makka day la ci gën a màgg nga xam ne bu bu la rëccee mënoo koo dabantal moom mooy arafa mbokk arafa benn bis la ci at bi bu la fekkul arafa mënatoo aj ba ila yawmi diin subhanallah mënatoo aj ba ba beneen aj di ñëw ci waaye amul beneen bis boo xam ne mën na ko remplacer loolee di aj makka gu màgg googee nga xam ne nii am nañu yàlla wërsëgal ca moo ñi dëkk Arabie Saoudite ñu bari ca ñoom ña nga ca allahuma lu dul ne yàlla nattu na adduna bi tey mboolem ñi nekkul Arabie Saoudite mënuñoo dem aji ji di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sabab ba yéen ñëpp xam ngeen ko mooy natt bi yàlla wàcce ci suñu kaw ca dara taxul mu wàcce ko lu dul bakkaar yu bari ci kaw suuf bakkaar yu ñu banaliser ci kaw suuf mu wër adduna ndar ko képp ca la yàlla indee balaa bu wër àdduna ndar ko képp yal nañu yàlla wërsëgal tuub gu rafet gu ñu delloo ci moom guy tax mu teggil ñu balaa bi loolee mbokk ngeen bàyyi ci xel bu baax ni mu nekkee sur le plan international noonu la nekkee sur le plan national tey jii Sénégal ñépp ngi nekk di tiitaat te mooy mbas mi mi ngi ñëw mi ngi gën a yaatu wallahi mbokk jullit dara waralu ko lu dul suñu bakkaar wax ju bon ji ñuy wax fii ci bokkaale ak caaxaan yi am fii néew na réew yu mu am wareef la ci képp kenn ci ñun mu def ci kemtalal kattanam ci bakkanam ci njabootam la ca des mu naqar lu ko ci xolam boole kook ay ñaan te xam ne loolu dong mooy la nga xam ne moo ñu ca mën a musal ay yéen ba ko julit bi su arafa mi ngi nii di ñëw di su boo xam ne yàlla tànn na ko di ci goreel la nga xam ne mooy ay jaamam suñu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dana wàcc bi su arafa ca la méngoog moom ca asamaan yu jege ya nan malaaka yi xool leen sama jaam yi jóge ci gox bu nekk ñëw fii yaakaar sama njéggal ak sama yërëmaane suñu borom yàlla seedeel leen dana leen jéggal yërëm leen góoral leen ci sawara waaye ndax loolee day doon ñeel waa arafa rek déedéet mboo ko julit ndax suñu borom yàlla xam na ne ni ay jaamam du ñépp man ay ndigalam lam leen di xoole mooy seeni xol loolu it moo tax képp koo xamee ne nii bokk nga ci jullit ñi suñu borom yàlla dana la boole ci loolu looloo tax buñ demee ba ca suba ga te mooy bisu tabaski ba mboolem goxi kaw suuf mboolemi jullit dañu ànd ak ña teewul arafa ñoom it rendi seeni xaru tabaski daal di yëkkati seeni takbiir comme naka waa arafa di yëkkatee ànd ak ñoom ci it googee mbokk yow ma arafa mi ngi ñëw di bis boo xam ne nii la koy gën a màndargaal mooy ñaan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daana wax ne ñaan gi gën gu doomu aadama ñaan ci at mi mooy ñaan gëm ñaan bisu arafa daana ca dolli di wax ne la gën ci li ma wax maa ngi mboolem yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mbokk loolu ñaan la goo xam ne ñaanuk taggaate la te mooy gën ci ñaan yi yéen sénégalais yi miin ay géwal xam ngeen li ñuy tudde sa géwalu juddu su ñëwee sa xew di ñëw naan la may ma day ñëw rek di tagg say maam lan koy may mooy gën a kawe ña lay topp naan la may ma may ma ca xamuñu la kon it la gën a màgg ci li ñuy ñaane yàlla mooy nga saxal wéetaayam laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah kenn yooyowul ñu koy jaamu ko dul yàlla moom dong amul lenn lu mu bokk ak kenn jalla wa ala lahul mulk lépp luy moomeel moo ko moom moo moom asamaan moom suuf moo moom njaboot gi moom alal ji moo moom kattan gi moo moom aafiye bi lahul mulk suñu boromin mu ne lahul hamd cant yépp ci moom la lay dellu lu way am moo la ko jox moo koy jaarale ci ku ko soob waaye wa maa bikum min ni'matin fa min allah loo am ci yàlla la jógee lahul hamd borom boobu subhanahu wa taala ni ñu do lañ cay dolli mooy mooy ki am kàttan ci lu mu mën a doon su ko defee yow julit bi wax loolu seedal wéetug yàlla seeda moomeelug yàlla seeda cantug yàlla seeda na yàlla am na kàttan ci lépp loolu mooy la gën ca la ngay ñaan mooy la gën ca la ngay ubbee say ñaan gannaaw ba nag nga jublu sa boroom ñaan ko mbooli mi xéewalu àdduna ak alaaxira moom dong moo ko moom ca it moo ko sañ a joxe ca it daa sawar ci defal ko jaamam keneen ku dul moom moomu ci dara jéggalu ko say bakkaar jéggalul julit ñi ña faatu ak ñuy dund yépp lii la julit war a màndargaal la nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy yowma arafa gannaaw loolu mbokk julit ñee yàlla wërsëgal ñu dara daje arafa ci altine bii di ñëw ñooñu day am nan ngëneel bu màgg suñu borom yàlla subhanahu wa taala di leen wan malaaka yi di bàkkoo ci ñoom waaye nag suñu borom yàlla yërmaandeem ji yaatu na ci ñu koy tënk ci ay place wala di ko tënk ci mbooloo loola tax bi sa arafa bu ñëwee yërmaandeem jooju dana wër mbooli mi julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ñaax ñu wóor la nga xam ne mu bi sa arafa bokk na ca loo xam ne nii yàlla danañu ko defal danañu baal bakkaaru at bi ñu génn ak bakkaaru at bi at bi ñu dëgmal yépp muy bakkaaru ñaari at yàlla danañu ko baal bokkul ak na xiiwal yeneen ya nga xam ne moom lay àndal looloo tax ñi ngi ñaan mboolem yi mbokk julit nga la way altine bii di ñëw ku amul ngant na ko woor képp ku amul ngant na woor altine bii di ñëw jubla ca woor la nga xam ne mooy wooru arafa ngir sunu borom yàlla boole ko ci njéggal googu yal na yàlla yombal ko ci ñun ca nangul ñu ko mbokk arafat mi ngi ni di ñëw ñu war a góorgóorlu ci fan yi ñu nekk fanu zikr la bu ñu yeggee ba arafat ca altine ja ngal waay nañ ko yokk nañ ko yokk suba ga ngoon nga bëccëg ba baba jant ba di so nañ wàññi portable yi nañ wàññi waxtaan yi jagleel suñu boroom zikrullah ma shay min shay'un anja min azabillahi min zikrillah amul lenn lu la gën a musal àdduna ak alaxira ci bari loolu di def zikrullah suñu boroom mu ne wala zikrullahi akbar tudd yàlla mooy la gën a màgg lépp loo xam ne yéen a ngi koy def waaye gannaaw ba yéen bokk julit ñu ngi séentu bis bu màgg di bisu tabaski di bisu iid boo xamee ne nii julit yépp war nañ ko waajal comme niñ ko waxe woon ci xutba bii passé bépp borom kër jéem a waajal nan lay amee xar moo xam ne dañ ko rendi ci kër ga mu yóbbaale njaboot ga yépp ñu góorgóorlu ci waajal bi si it heure boo xam ne nii ñëw na ca it bokk na natt boo xam ne suñu borom yàlla nattoo na ko mooy fii suñu réew ñun Sénégal xam nañ ne defandoo wuñu ko doonte ne lañ ci daan ñaan naka jekk loolu rek lañ tey ñaan. suñu borom yàlla moo bind doomu aadama ay juyoo di am ci ñoom waaye li ñuy ñaan juyoogu yàlla na yem ca jëfee ca bañ a yegg ci biir xol ya ala kulli xaal da ngay gis ñoo xam ne nii talaata lañ jàpp ne mooy tabaski ca ñun ñii dañ caa bokk ngiree it may occasion ña nga xam ne dañoo bokk ci ñi jàpp ne talaata mooy tabaski looloo tax daan taxawal fii incha allah julli it ci tabaski ci talaata bii di ñëw su dee neuf heures jot na incha allah képp koo xam ne nii day ñëw mu góorgóorlu bañ a lekk dara ba nga xamee ne bisu keroog li muy jëkk a lekk mooy loo xam ne daa jóge ci am xaram keroog bisu keroog xoolal la gën a taaru ci sa yére nga sol ko boo mënee yoon bi nga jaar bi ngay ñëw boo indi bi nga jaar la nga xam ne mooy beneen yoon bari lool la nga xam ne ci bisu arafa ba ba baa guddik iid ga ba baa bisu iid ba bari lool di def ak tudd yàlla ba baa ngay dem ca jàkka ja continuer tudd yàlla yooyu ak takbir yooyu ba baa imam di génn ngeen doog a ànd nag ànd ak moom julli la nga xam ne ni moom mooy julli googee loolee ñu ñaax ca góor ya ñaax ca jigéen ña ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax da daan wax ne ngalla waay même jigéen ñi ànd ak ay règle nañ dem suñ demee nag ñu bañ a toog fa ñuy julli waaye quand même ñu fekkee ñaan ya nga xam ne dañu ko fay ñaan fekkee yërmaande ya nga xamee ne nii dafay wàcc ci jullit ñi lii mbokk da ngay gis ne mooy li ñuy yaakaar ña koy def talaata ak ña koy def àllarba yépp ñi ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla subhanahu wa taala boole nangul yal nañu yàlla déppaleeg bépp ngëñal bi mu wàcc ci arafat yal nañu yàlla déppaleeg bépp ngëñal bi mu wàcc ci yawmul iid yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ña nga xam ne nii ñooy sàkku ngërëmam ci lépp loo xam ne ñoo ngi ko tey def ca amul lenn looy defal yàlla mu sell sa biir xol nga sàkku ca sa kemtaleel kattan ngërëmal yàlla par par loo taxul ngistal taxul rëy rëy lu taxul lu dul jëf boobee ñaar mi ngi la cay xaar imma dëppoo nga ak ngërëmal yàlla yàlla fay la ñaari fay wala nga juum mooy la nga jàppoon safaanoon ak ngërëmal yàlla waaye sincérité bi nga àndal sunu borom yàlla teewul mu fay la ca benn pay yal nañu yàlla boole pay àdduna ak alaxira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين وأن يكتب لنا جميع الرحمة والمغفرة والإتق من النار إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين